Sénégal nag ñun loolu moo ñu yàq ay soit nit da lay neex wala doo comprendre da ngay topp nit ki sans raison nit ki boo koy topp daa am yaakaar dafa am dangay ngay daa am foo koy teg quoi gis ni xëy na même bu la defarulul xëy na ci yow lu muy liggéey wala lu muy wax bu ko defee say sët wala say danañ ci njëriñu comprendre nga ak ah, kañ léegi pour affaire assemblée bi démbul bon man sama xalaata ah, man sa trouve que ni loolu xëy na bon motion de censure boobu jaru ko woon parce que gëm naa ne bu jàlloon mooy danañ doon defal Macky Sall lu ko neex te ñoom duñ ko xam quoi ci sama xalaat

waaw rapport cour des comptes affaire Covid bi xam nga ay directeur ak ay DAGE ak man baraama dañ naan DAGE mais DAGE xanaa du ministre mooy chef am léegi DAGE yow signature DAGE kese comptewul signature ministre bi moom mooy validé mooy approuvé mooy mooy approuvé léegi comment comment se fait tey ñu ne non DAGE yi la DAGE yi la du ministre yi loolu mën ta nekk. donc xaalis bi lu. xaalis bi moom xaalis bi moom xaalis bi moom parler Sénégal moom ñu lépp xam nañu. fu mu toll nii moom ku dàq dóor sa morom nga ne kii la waaw sàcc ganaar yi ak sàcc yu ndaw yi moom la ñuy jàpp tëj mais comme ni ko gars yi wax les voleurs en col blanc moom kenn leen laal kenn au contraire dafa mel ni tey boo sàccee yow lay yokkal promotion parce que nit mënul nekk benn place nga dégg dóor ay milliards ñu toog ay weer suñu président jël ko fal ko niveau bu a kawe loolu naka la nit di mën a comprendre kenn mënu koo comprendre mais effectivement am na euh, opposant bu ko wax xëy na tur bi laay bañ a tur bi laay bañ a tudd mais Eh, yenn poste yi c'est que xam lan la ñu war a njëkk bàyyi di nommé nit ndax politique surtout si yenn postes postes yoo xam ne c'est stratégique poste boo xam ne ki fa nekk dañu dafa laaj mu liggéey foofu di fa teg ab politicien da ngay yàq parce que mooy waral mu dem jëli ay waa dëkk même boo xamul dara ay mbokkam ak ñëpp di leen di fa dugal loolu moo rey poste poste looloo ko rey ba mu dee moo rey Dakar dem dik parce que directeur bu ñëw indi say mbokk ji nga directeur euh, généraux yi pour man sama xalaat comme ni ko bon ni may wax opposant bu waxee dafa war dafa war a nekk loo xam ne dañuy def appel euh, maanaam dañuy lancé appel d'offre wala concours léegi suñu maanaam suñu technocrate yeeg suñu ñu am xam-xam yi ñu dem ñu dem ku nekk dem nga postuler ni say CV ñu xool ki si gën ñi tànn la assemblée doo ko approuvé waa ngi tamit doole suñu c'est que su erreur bi njëkk xam nga sax pour man maanaam euh, Sénégal régime bu ñu yor président bi dafa bëri doole président mooy mooy mooy mooy def lépp comprendre moom mooy fal généraux yi moy fal directeur directeur généraux je fal ministre Le président ne fal imam comprendre la il faut ñu wañi manam doole président il faut ñu wàññi ko mais tant que ñoy ngi président ak doole gi mu yor fal fal juge moy fal euh, yow yow man juge président bi fal ma mais président bi lu tay man supposons ben capitaine laa si armée wala ci gendarmerie président bi yégal ma colonel institut ba général mais lu mu bëgg loolu la koy défal donc pour man nomination yi au sein de l'armée armée dañoo bàyyi dañoo wara a armée ñom ñu xol niñ koy défé au sein de la justice même chose ñom ñi fal manam ñi wara a grade supérieur ñi nek fofu ñi koy ñi koy digal sen bop mais tant que président moo koy yor cioli yi lay indi rek parce que ku olof nee na ku la abali bët wax la fa ngay xol après enquête bi nous avons constaté que ni. Il nit ñu ngi ñu ngi profité de cette chalice di en enrichir di di di créer des choses yo c'est vraiment déplorable si un pays assez assez pauvre comme le Sénégal. non man man man parce que man je me rappelle période Covid bi ñun presque def nañ touru Dakar et même tour de certaines régions pour sensibiliser nit ñi. Et je vous dis, certains n'avaient même pas 5000 francs de remboursement de transport. Ça, c'est moi qui vous le dis def nañ ay caravanes au niveau de la région de Dakar avec certaines structures dont des structures du ministère de la santé et d'autres structures mais avons ñi 5 000 francs à' doon remboursement de transport je dis bien 5 000 francs ah ben chandis après le génie des et nous en tant que des acteurs en tant que des jeunes on le faisait de manière bénévole on le faisait de manière volontaire Je moi si pendant ce temps ay milliards ñu ngi suñuy ñun ñun quoi c'est comme si nous on était plutôt sensibles nek ay acteurs pendant ce temps nous avons des jox nañ leen ay ndombal ñu dirigeants dans ce pays ou des responsables qui peut-être même assermentés parce que ay dajax c'est des agents assermentés de l'État té ñoñu ñu ngi def lo xamantene gaayen moy lolu quoi man lolu si nous on faisait du bénévolat et pendant ce temps d'autres personnes s'enrichissaient à côté non man pour moi, l'option est day option parce que Sénégal l'Assemblée, en fait personnalité politique c'est-à-dire que pouvoir comme opposition avez une bonne assemblée vous ñi contre juste parce que ànd àndu ñox Mais le mais Sénégal il y a une loi, il ay loi règlement on a qu'à appliquer la loi ils ont foutu, ils n'ont qu'à payer man c'est wax beneen bi moy ñi ñi ñu épingler c'est des acteurs financiers xamone nañ exemple après après xaalis biñ ñu leen jox dinañ ko auditer ñen ñi jaar nañ sax cour des comptes donc c'est des c'est des acteurs en fait nit mënul def finance pendant des années jang ko euh, jaar ministère des finances ba paré di def ay ay ay BA ba yo xamantene en termes de comptabilité même ñi def un an de comptabilité xam nañ ne 100 milliards doo ko génnee espèce ni di ko joxe te virement nekk fi chèque nekk fi voilà donc donc li ñu doon def ñoo ko certes ils vont me dire que c'est des urgences parce que si période la boo xamante ne dëkk bi dafa dansoon ils face à des urgences yoo xam dañ soxla liquidité mais rien ne peut justifier liquidité bu tout le ay nit du coup génne du coup utiliser si dëkk bi beneen bi rien ne peut justifier aussi que Khalis, bu toll noonu ay surfacturation di si am man xaalis bi suñ neme woon acteurs yi ñi nga xamante ne ñoo sur le terrain wala ñi nga xam ne ñoo doon sensibiliser jox nañ ko mais ñooñu ko ci si dékk micro dana lan li ma doon joxe de manière bénévolat mo upp je te disais acteurs yi gënoon son ci si riposte bi actuellement gañuñ ci dara peut-être yaakar nañ ne am nañ ci fay suñu borom parce que dañ doon def de manière bénévole mais les autres ñi nga xamante déjà c'est des agents de l'État l'État les paye ñu ëlbantikuwaat di jël suñu xaalis loolu il faut en aucun cas laisser laisser tomber en tant qu'acteur nous nous demandons à ce que cette chose-là soit vraiment claire non il y a beaucoup de recommandations ah bon man man ce que je souhaite moi, information judiciaire nous, nous, nous ñu quoi. ko recommandation parce que je pense qu'il y a plusieurs recommandations Nous, nous recommandations c'est des acteurs comme nous, nous, nous nous en fait. parce que ku au cours des comptes en fait du du joxe recommandation parce que du folie quoi du politicien tu vois du joxe aussi si si neexaayu bakanam donc moi je je pense que ñoom ñooñu noonu yëpp dañ leen dañ leen war suivre top information euh, poursuite judiciaire yoy bañ fay ñu suñu xaliss ñun mënuñoo pauvre ba ay ñeneen di jël suñu xaliss di ko lekk te du mujjé fen lool mënu nek ils n'ont qu'à nous payer merci beaucoup. ñu lay ñu ziar di di balaa bal ñëpp af yal na yàlla may jàmm may jàmm mbooleem jullit ñëpp ci réew mi Pape Babacar Seck waaw waaw non ah da wax ñu xamuñu fu mu dugg ne ñoom xamuñu fu mu dugg te ñoom xamuñu fu mu jaar dafa am loolu la wax sax nee gàcc sàcc du gàcc Sénégal fenn dañ koy tiitaroo caaxaan dañ koy ndamoo réew bu demee ba loolu am ci nekk boobu réew moom doy na waar dafa am benn góor bu ma waxoon lu am solo mun ma senegal ki koy defar yaayam ci dogul man ko lu tax mun ma caaxaan bay bari parce que caaxaan moo ko lal poo di ko doxal réew bu demee man caaxaan moo lal poo di ko doxal boobu réew moom du kii xoolal nag suñu njiit yi fi nekk tey yëpp yëpp yëpp yëpp ñu fi nekk koo ci gis tuumale ko sàcc te ñoom ñoom lañu yaakaar falu ci Sénégal est-ce que réew moom dina dox naka lay doxee kon yenn yi def naa soxna si daal jaruñu ciy sonn xam nga bu njëkk ba xam bu njëkk ba nguur Abdou ak Senghor balaa ñu la jox responsable dañuy def enquête ba ñu xam ni nga ni nga mel mais loolu moo amatul Sénégal da ngay seet ku neex sàcckat ngay fal ku la neex ngay fal xoolal Sénégal tey tey at yi passé nii képp ku sàcc kan nga gis jàpp ko ministre yi tuuma leen ko sàcc nit tuuma leen ko sàcc ñu fal ko ministre mais kon jaruñu ciy sori réew kay dañu ñaan yàlla rek teggal ñu fi nekk tegal ñu fi ñu baax bu amee mu baax ki baax nag ki gën nag yàlla ñu ko yàlla tegal waaw bu dee Mimi Touré sax moo gën yàlla ko yàlla ko yàlla teg wala Idriss Seck moo gën waaw waaw jërëjëf. salaamaaleykum maay nuyu sénégalais ak téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp euh, Daouda Samb Ngor. ah sama xalaat mom day don comme xalaatu sénégalais yépp parce que xaalisu réew mi mom xaalisu réew mi la du xaalisu benn nguur liñu mom dañu ko wara a bo mat sëk duñu jël ay milliards di ko séddoo seen biir pauvre yi di continuer doon ay pauvre ñom milliardaires yi continuer doon ay milliards ay milliardaires Sénégal fa la jëm ak loolu parce que ñu fay xey di dégg ay milliards doo xam fa la milliards jaar waaw Covid 19 ñi ñi souffrir ñi ñi perte ci seen liggéey ñi ci dàq non la bëree léegi nga bëgg jël ay milliards do ko wutal ay papier nga ñëw bu ko joxee trans ba pare buñ la laajee papier nga ne amul amul justification pour lan sénégalais dañ sonn tamit nañu dimbali sénégalais lam daay ñu baye ñom seen milliardaire ñi ñuy du yoon wa c'est normal parce que assemblée rew bi lañ fi nekkal ñi ñiñ fa bàyyi dañ leen fa teg pour ñu di ñu xeexal joxuñu leen suñu xaalis pour ñuy dem foofu di dóorante di xeex nañ ñu waxal suñuy doléance fii liñ liñ fi gis muy yoon dañ ko war a teg si yoon directeur yeeg ministre yeeg gouvernement bi yëpp buñ leen di fal dañ leen war a yóbbu assemblée ñoom ñëpp ñu tegu fa buñ ko fa voté bu jàllee ñu voté leen buñ buñ jàllul ñu arrêté leen ñoom ñëpp waaw 221, une autre vision de la télé.